dañ visibilité ci fiñ ñu jëm ñaareel bi ñun ñëpp dinañ xam la xaw la xew fu né dinañ mëna am une synergie d'action di xatiendo di dorando li dal moy proposition yi garaaw ñëpp inscrire nañ ci liste yi su fekké né amna na feuille de présence aussi pour ñam am numéro téléphone nit ñi fay bax su ko défé dès ce soir ñu partager composition comité bi euh, avec le comité le collège de coordination mais également ñi inscrire ci pôle ñu xam ñan la. ba paré plan d'action bi au plus tard demain ñu mën ko partager avec tout le monde su ko defee ñun ñu jéem xol ni ñi jëlé logistique logistique de campagne bi t-shirt yeeg casquette yeeg ak le financement également des activités que nous devons faire suma ma juumul yaakaar synthèse bi loolu la kon vraiment l'idée moy peut-être di len encourager. Euh, man am une intime conviction que li gën ci Sénégal moi li président Macky Sall j'ai a def douze ans ci biir Les mi li fi xew ci weer yi weesu ak at yi weesu dinañ wax lu du ne résultat ak plan Sénégal émergent amul résultat lol kenn sañu ko wax ba tax na nag dañ ñu bëgg imposer benen façon discours ci réew mi amna ay jamono ay waxu borom ñaari tour yi lañ indi waaye loolu foog naa fàtte nañ ko dañ ne woon dañ koy daganal assemblée am na jamono ñu wax yeneen i wax yoo xam ne bokkul ak lii wax ji lii wax ji mooy ñi fi ne ndax mën nañ wala mënuñu ndax bañ leen dénkee lañ def am na résultat wala amul résultat ku xool réew mi xam ne xar kanamam soppi na. Amadou Ba du kuy essayer du kuy làmbatu fa mu jëm xam na ko jaar-jaaram may na ko ko expérience am mën na ko. mat na kiliftef bu wër ci ndax gisuñ ko mu xulo gisuñ ko mu mu xex li bi xarab bi gisuñ ci gisuñ ci gisuñ ci donc Yakar nañ ne suñu sénégalais yi mat nañ ay citoyens yu am expérience té ñom dinañ am ragné té xam nañ dès le premier tour le 24 mars Inshallah. ñun ñëpp nag nañ laxasaay wàcc ci terrain bi pour dimbali leen ci may gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla may ñu ndam ci barke weeru koor